jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba asalaamaaleykum mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégteeg bànneex di àndaat ak yéen fi seen télévision Ngalam TV la tele de toutes les générations di ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te wér noonu lañ koy ñaanalee xalif général des baay faal mu yàgg fi lool te wér mbokk yi ku ne xam na ni ñoo ngi tey ci weeru safar weeru safar nag suñ ko waxee di weeru Serigne Touba di weer bu màgg di weeru ngëneel di weer boo xamante ni nii murit yëpp dañuy jóg fa seen àndandoo dem santale yàlla kii di Serigne Touba Cheikhul Khadim tey nag ñoo ngi fii ci marché Mame Diarra Guédiawaye commune Ndiarème Limamoulaye ku wax marché maam Diarra nag wax Mame Diarra Bousso borom Porokhane kon yaakaar naa ni tey jii bu marché maam jaara wootee safar ànd kook Ngalam TV kon yaakaar naa ni du bett kenn non la def and ak yeen dem ci ñi nga xamanteni ñoy mbokk talibé yi nek ci biir marché bi ak ci biti marché bi laaj leen seen xalaat tataan seen xalaat ci ñi nga xamanteni tay non lañu la wër bu mag bi ñu nek di wëru safar di wëru cheikhul khadim kon non la and ak suñu cameraman dem ci ñi nga xamanteni ñoy mbokk talibé yi ñu waxtaan ak ñom tay ci bis bi kon nañ leen dem ñi dañ kay wowe muhammadu sayyiduna muhammad ñi dañ koy wowe khamadu seyduna muhammad ñii dañ ko wee muhammadu seyduna muhammad ñii di ko woowee ahmadu seyduna muhammad ñii di ko woowee xaamidu seyduna muhammad ñii di ko woowee xaanibun seyduna muhammad ñii di ko woowee tairun ñii di ko woowee tayibun ñii di ko woowee seyidun seyduna muhammad ñi di ko woowee rasulul ba tey ñu ngi fii rek ci marché Maam Jaara ci safar gi waaw kii ñu toogal nag di suñu papa Abdoulaye Ndaw nekk kilifa ci marché bi daanaka ñu sanc marché bi ci la ci bokk waaw kon moom mooy kilifa ak marché bi bala ñoo def dara rek ñu taataan xalaatam ak safar gi mu demee papa Abdoulaye Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax euh, maa ngi leen di fay bu baax euh, de maa ngi leen di fay euh, di ñaan yàlla sunu borom sunu kàdd yi may fas yéene yëkkati képp ku dégg fekkee ci ay jafe wala tawat ma ngi ñaan yalla suñu borom bo gannaaw boko deglo ba pare yalla suñu borom safara lool euh tay ñi ngi ñew fi ci marché mam Jaara ku wax marché mam Jaara wax geedja way euh, Njaareem Limaamu lay wax tamit mu dend ak lool keur seigne mustapha basirou mbake tay ñu gis safar gi est-ce que mën nañoo xam safar gi kañ la tàmbali ba tay ji ñu yegg si fii. waaw safar gi nak euh, yalla suñu borom dogal na mu tambalon ay at yu yag yàgg euh, toll na ci ci 2002 ba 2003. ci côté yooyu daal 2005 2006 daal xam naa ne ci moom ci la gën a dëgër ñoom Moustapha Seck yoroon ko di ko doxal mu Moustapha Seck ak euh, Fat Ndiaye euh, ak Maam Diarra Ka ñoom ñii ñoo yoroon yëf yi doon ko doxal yoroon ko yoroon bu rafet boobu nag yàlla dogal na dugg duggaguñ ci biir marché bi waaye nag jamono boobu ñu ngi yoon ci côté yi ñoom it lu ñu daan def dañ daan ñëw ba ci man waxtaan ci ak man euh, ñu sottoon ci ay xalaat ñu doxalee ko doxal bu rafet. Euh, marché bi nag marché maam jaara nag boo gisee ñu tuddee ko sox euh, soxna jaara marché bi bi nga xam ne initié nañ ko euh, commune u Guédiawaye ñu ñu ñu ñu initié ko ne dañu fi bëgg marché fii te jamono yi Pam Ndiaye Digeen moo fi nekkoon boobu jamono yi wax góor gi dem ba sekk moo nekkoon fii ci marché bi dal di ànd ak ñoom ak Baye Abdou Khadir Ka bi nga xam ne moo nekkoon représentant wu sëñ Basirou ci ci ci Ndakaaru ñu àndoo dem ci sëñ Moussa Basirou bañ demee wax ko ne ko daal bëggoon nañu fii daal marché boo xam ne dañu koy kii tuddee ko soxna jaara sëñ musaa Bassirou jox leen ndigal pour ñu def ko fii barab bii nag dafa am histoire ci ñoom ñooñu nga xam ne mooy njabootu sëñ musaa Bassirou ndax barab bi sëñ Moussa Naawel net moo ma nettali ne ma rakkam moo ko moomoon station lañ ko waroon a tabax waaye bi gaa yi ñooy wax ak moom sëñ bi woo leen jox leen digal ne jox leen leen barab bi ci lañ ko tabax Euh, ba mu taxaw ñu tuddee ko euh, Soxna Jaara waaw loolu loolu loolu mooy histoire marché bi. gis nañ ne wax nga ko léegi sa biir wax marché bi daan nañ safar mais daanaka daawuñu sax sentir ni safar am na fi mais gis nañ ren booloo bi góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi kaw geeg suuf gi yëpp gis nañ tey ñii ñëpp àndandoo ko loolu liggéey bi nan la tàmbalee ak naka ngeen ko defee ba am réussite. waaw loolu nag moom dañ ciy sant yàlla bu baax di ci sant Serigne Touba bu baax a baax a baax ndax woote ñu wuy sa la lu jafe la. waxit ñu déglu la lu jafe la euh, tey kilifa yit maa la maa la yilif maa la yilif tey yaama may yilif da ko gën a da koo gën a da koo da koo gën a dëgër ba yàlla dogal na bi nga xamee ne ñëw nañ ci marché bi it ñu ànd fekk ay nit yu baax ay gone yu baax ay jigéen yu baax ñu ñoo xam ne liggéey la ñu xam ak ak jaamu yàlla euh, bi ñu ñëwee tamit la nga xam ne moo fi neewoon démb dañu nekkee lii fi nekkoon de baaxoon na waaye nag dañoo bëgg def leneen loo xam ne lii moo gën lii li ñu jëkk def mooy fexe ba boole marché bi ci kaw ak ci suuf ñëpp booloo nekk benn nga xam ne buñ ñu doon génn leen ñëppay génn ci biti buñ noonu na ñëpp toog ñëppay toog buñ noonu na ñëpp tey seen i place ñëpp tëj seen i loolu lañ jëkk xeex ba am ko loolu moo waral nag ren safaru ren gi maanaam mu yegg foo xam ne wax dëgg yàlla dayo bi doy na kéemaan ndax ci kaw ak ci suuf ñëpp kenn ku ne làmm ko sa poos joxe joxe joxe woolu seeni jigéen maanaam li leen laa ñu jox ko waaw loolu moom mooy mooy li nga xam ne moom la ñu moo moo moo wax dëgg yàlla ñu sant yàlla bu a baax nag waaw. tey ci journée safar bi yëpp bi ngeen xëyee suba ba léegi lan ak lan ngeen fi ko waaw bi ñu xëyee ci suba ak léegi def nañ fi li nga xam ne lii moo moo yitteel sëriñ bi ndax kat euh, euh, weeru safar wii li nga xam ne moo ko sabab mooy tukkib sëriñ tubaab bi nga xam ne da koo def ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. Euh, tukki boobu nag damay faral di wax ne sëriñ Touba keral bi muy gedd ak njabootam di gedd ay doomam ñu doon ay ñu doon ay tutànk ci jamono yooyu euh, euh, mu mu gedd leen jublu jublu nasaraan yi pour fas yéene xeex ak ñoom dégg nga de ba dëgëral réew mi teg ko ci jàmm ak sunna booba loolu jafe la woon di di di di bés boo xam ne sëriñ bi dafa wax ne at mu jot bu waxtu wooy wasaan jot yonent bi sallallahu alayhi da koy feeñu xamal ko ne ko ah nattu ba kat waxtu wi ngay war a jot nattu bi kat jot na nee na bu boobaa su fekkee na nattu bi fukk la woon dañ koy multiplier par téeméer at mu jot dañ koy def noonu ba at mu jot daraan daraan toog di déglu di xaar ndigalu nattu bi nee na mu mu mu mu toog ba ci ba ci bés bi rek yonent bi feeñu na ko ne ko ah bés ki tey nattu yi ba jeex na lu weesu nag tey ba ba ilaa yow mi yëpp xam maanaam say xéewal day gën di yokku loolu nag euh, bokk na ci li nga xam ne sa ak cant la loolu nag moo tax nag loolu ñun bi ñu ci xamee loolu bi ñu xëyee lii fi jëkk a def mooy jàng fi alxuraan wàcc nañ fi ñaari kaamil alxuraan ak kaamil bi nga xam ne dañ koy jàng par alxames muy bu démb bi jàng nañ démb benn kaamil tey jii jàng nañ fi ñaari kaamil jàng nañ fi 66 wakaana axan njabootu kër sëñ Moussa Basirou ñoo ñëw taxawee ko imaamu raatib bi nga xam ne moo mooy mooy mooy mooy sëñ Modou Fall nga xam ne mooy doomu sëñ Bass Fall moo taxawee kaamil bañ jàng xatmu bi loolu daal bi tàmbalee ci subaak léegi loolu lañ fi tàmbalee defar ay ndëkki jox ay xéewal ndax dañ ne màggal gi moom berne la waaw loo loolu mooy li nga xam ne moo fi jotagum am ñu ngi togg añ yi di waajal leneen ci ngoon gi incha allah. jërëjëf Pape euh, Abdoulaye ndaw ñu ngi lay sant bu baax euh, di la jaajëfal waaw ak waa Ngalam TV loo xam ci Ngalam nag. ah Ngalam moom Touare Fakal la Ngalam moom. Euh, dafa wuyu bor dafa wuyu turam ndax ngalam bu ñu ko waxee ci baatu olof day ngalam moom gànjar lay lay lay lay lay lay tekki ngalam moom gànjar lay tekki ngalam bu ñu ko waxee maanaam xaalisu ngalam mooy xaalis bi nga xam ne moo gën a wér nga xam ne amul rax amul dara moom la ñuy wax olof di wax ngalam kon nag bu bu site bii bu tuddee ngalam te ñu gis liggéey bu am solo bi muy def ah, kon dañu dañu xam ne maanaam ngalam wuy na trop wuy na trop kon nag ngalam moom ñëpp ci am ñëpp ci ñëpp ci war a ci am taxawaay ndax ku am sa soxna euh, bëgg mu ne xenjaw faawu di nga ko wutal ngalam waaw moo tax dañoo bokk ay pexe dañoo war a bokk ay pexe bokk yéene bokk lu nu am loolu mooy suñu waru war bu ñu ko defee moonu war bu ñu ko deful moonu war kenn ku ne la nga ne sa moroom ne ca boo gisee sa morom di jaar yoon woo xam ne woonu du yoon wu baax bu ko làqatu di ko ko jëw woo ko ba mu ñëw nga nga taaj ko ne ko bàyyi lii dafa lii ñun ñi kenn ku ne mën naa doon sa kilifa morom yow mi Fodé man ngaa nekk sama kilifa fekk ma may def loo xam ne di maanaam méngowul ak samay at ak sama sama jëmm nga woo ma ne ma pandaw kaay nga ñëw nga ne ma pandaw de lii ngay def de rafetul ci ñun bu ñu ko déggee sax maanaam gàcce lay doon kon nag euh, doon ak taalube rek am solo yàlla yàlla defal ñu doon ak taalube barke borom Tuubaa te nangul suñu taalube mbokk yi ñu ngi fii ci soxna Ndeye Thiandoum tey moom mi nga xamante ni tey jii moom it bokk na ci ñi nga xam ne ci ñuy organiser safar gi ci organisatrice yi ci la bokk soxna Ndeye Thiandoum ñu ngi lay nuyu. Euh, ñoo ngi leen auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam leen baalo àq bu baax a baax a baax di am kontaante ak mbégte macha allah ci safar gi niñ ko organiser. ndax macha allah waa marché bi yëpp booloo nañ nekk benn dank bokk ndey bokk baay. japp defar nga safar gi baax macha allah. nag euh, Ndeye Thiandoum damay beral wa marché mam Diarra euh, nuyo ak tiant ak ngeureum di len sante di len geureum ndax wax deug yalla awma sen fay ndax euh, won nañ ma ciofel jappale ma taxawuma macha allah ba lepp ci lu nyuam rek ci lepp luñu ñu dugg rek ñom ñu ci ak ñun jappale ñu ci ba mu allah di sante ñep di sante samay mbokk di sante ñep di profito nak di sante sama wa ya salam marché mam ndax marché Maam Jaara moom lépp defe naa ni lépp lu ñu fi def rek waaye Yaa Salaam ñu ngi ci biir muy góor ak jigéen mag ak ndaw waaw li ko waral mooy ñun dañ daan organiser organiser bi mooy dañ doon jéem jéem jàpp euh, booloo ñëpp nekk jàpp ci daal macha allah waaye bii passé dañoo woote dem ci mag ñi waxtaan ak ñoom ne leen ni ah dañoo bëgg kat euh, ñu boole góor ñeek jigéen ñi mag ak ndaw ci kaw ak ci suuf ñëpp biteeg biir ñëpp jàppoo nekk benn ñu doxal mu dem parce que loolu mooy euh, booloo mooy doole loolu lañ doxalee noonu lañ ci doxee yàlla dogal ah, suñuy kilifa ñoom tonton ndaw ñëpp ànd ci wax dëgg fa yàlla macha allah ñoom meen yaay ñëpp taxaw ci taxawaay bu rafet loolu moo tax ren di macha allah lii fi am ni mosu fee am wax dëgg fa yàlla ah, suñuy leader nag ñëw jàppale ñu parce que nit tamit ah, nit bu la defalee lu baax da nga koy wax wax dëgg yàlla di sant suñu maire mooy Mor Waré Guèye wax dëgg fa yàlla yónnee na fi teraanga gu bari ak monsieur Lat Diop directeur lanas machallah mu yoni Modou fay mu and ak eh, seigne bar ak délégation bi and ak mom machallah ñu leen di ñaanal lu mën ren bu déwénee yan nañ mën lu ko ëpp ak bari na dal ay kilifa yu fi yoni ay taranga machallah ñu leen di sant di leen gërëm di xamne ne seigne Touba mom ay mbiram amul tanki ginnaaw tànki kanam rek la lepp lu fi waye def ren bu déwénee yal na nga mën lu ko ëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. ah machallah euh bu ngone mom di ngeen gis ngeen gis ñëpp danañ wa wa marché mam jaara bégee macha allah wone seen bop amna ay kilifa yu ñu invité ñëpp nga fa inshallah allah bu nexé yalla bu ngeen ñëwé ngon di ngeen fa gis lepp señ pap ñi ngi lay ziar señ Fodé ñi ngi lay ziar bu baax di leen jox seen way di leen dalal bu baax di leen wax ni li dafa nek lo xamanteni ni chaque année nii lañ koy dundé ñuy ay mourid day nonga tërbi dé day mourid sadiq kon warna heure bu señ bi digmalé safar gi bam tollu fi ñu doxé ko niñ ko niñ ko wara mëna doxé muy goor muy jigen muy mag muy ndaw muy téer yi nek ci marché bép ak ñi jaay jën ak yépp sant sëriñ bi rek lañ ci jublu sant sëriñ bi dong lañ ci jublu motax ñun ñëpp ñu ndo bolo doon ben def safar gi ci bis bi té diko sante sëriñ bu baax gaay nak dañ néma won bo démé ci pap mom waxam sax jarul muy bari waye nañu mer nañu may ay daaju xasida ah waaw lolu lolu lolu lolu mom dafa nek loo xamanteni sëriñ bi moñ ko nàmbatal ci ñun ndax liñu santé sante sëriñ moy, bi sëriñ bi naan jox leen man ndaw ñu ma def ci ñom la sëriñ Tuubaa daan def ci mag ñi donte yelloo ma ko ma barké ko ci jëm yoy lañ bok tay yow mi ñi laaj tay diñu poser question xam nga ci dara ñun lepp suñu képar yépp ci sëriñ bi la antal karim annal xaadim dahral hudim tum je da يوتي فعلا يا فيتي دا ما هل ما ناي إني بي مالي هيا انتو ريبي حد أنواع نوجي ما هل ما ناي لكن نادي كل البلاد لزل إباد باد الخيماي waaw loolu lañ amoon ci nih, ñuy nak waaw ndax bég nañ loolu di santaat sëriñ bi rek ndax lii moom day doon loo xam ne maanaam dañ ñu koo mu ci ñun mënul kon sant nañ sëriñ bu baax di la bégee mu sering mbirum sëriñ Touba si def rek barki sëriñ Touba Mbacke ke ko da ngay def affaire yi gën a rek amaana dañuy sant yàlla bu baax di sant sëriñ Touba bu baax na di tamit parce que lépp moom la ginnaaw yàlla yoon dem lépp moom la wallaay azim safar gi tamit ala daw me na barke Serigne Touba Mbacke te màggal gi ñëwagul daanaka dañ naan bu fi ñu si yëg suñu bu baax te chaque année bu ne billaay wallaay taala day gën a neex te mbirum Serigne Touba yaakaar li si waay def rek billaay wallaay taala day yokk rek mais newul day wàññeeku billaay wallaay taala li si def kontaan rek lañ si gis waaw ba tey mbokk yi comme ni ñu leen ànd ak yéen ci suba ba léegi rek ci marché Mame Diarra ci safar waaw ku wax nag safar gi wax ñi nga xamante ni mën naa ni sax ñoom ñooy coordinatrice yi waaw ku ci mel ni soxna yi taxaw ah xan jox leen ñu wax tey na ñoom naka la ñu préparé safar gi. waaw alhamdulilah rabi alamin bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla jul séenant bi di sant suñu ñaari waa ñaari waaju di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi loolu te wér safar gi ñu ngi koy dund ak mbégte ndax euh, mbégte safar gi bu xasee teeru rek ñu amatuñu jàmm amatuñu salaam ndax dañoo judd ci yoon bi yaru ci yoon bi kon ci yoon bi rek lañ war di doxé li ñi taxawal ni ci marché Mame Diarra bi di ko doxal ñi ñaan yalla suñu borom katanal ñu bañ yag ko taxawé di taxawé diko taxawé suñu taxaway nak du len dudul boole nit ñi boole marché bi ñepp doon ben ñepp doon ñi ñuy ndo di dorando ci barke Seydina Mohamed loolu lañ ñaan moy suñu taxaway moy suñu yité di ñaan suñu borom ñu agalé ak jaam ak salam di jox sama jëwri ñu àggale billahi mina sheytaani rajim ma ngi leen nuyu ñepp ku nekk ci sa tour ak sa sante di nuyu sama doomu nday yi xamna ñoo liggéey bi bo ba légui ndax ñëpp xam nañ ne liggéey Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am te lépp luñ ci def rek incha allahu rabbi mbégte rek lañ ciy am duñ ci mës a am coono duñ ci mës a yëg ba tax na maa ngi sant waa marché Mame bu baax a baax ndax takk nañ seen digg ànd ak ñun ñu ñu gis ak ñu ñu gisul macha allah seen doole ñëw na ñii seen yéene ñëw na te rek moo am solo di ñaan yàlla rek comme ni ko ndey waxee yàlla nañu yàlla musal ci musiba ak balaa si seytaane parce que ñun dañoo bëgg ànd booloo nekk benn ndax booloo ñëpp xam nañ ne booloo mooy doole te kii li ko tax a bàyyi këram kii li ko tax a bàyyi këram kii li ko tax a bàyyi këram fan yi yëpp mooy ñu ànd booloo nekk benn jàppale suñu marché ndax ñun amuñu lu dul way amuñu tamit lu dul marché Maam Jaara bi xam ne fi la ñuy teddee di ñaan yàlla nag di ñaanal nag sëñ sëñ Moutala sëñ ma sëñ Mantaha fa mu nekk yàlla na fi yàgg te wér yàlla na yàlla la ko maamam ji liggéeyloo yàlla na ko matal yàlla na ko matal bi mu Moustapha ndax ñun bu ñuy liggéey dañuy dem sottil ko ko moom mu sottil ko maamam bu tedd ba kon boog lépp lu ñuy def rek duñ ci sonn duñ ci tàyyi bu safar bi safar bi amaatoon suba ñu delluwaat ci li ñu defoon kon boog ñun kontaan nañ ne bu baax di bég ci sëñ bi di bég ci sama doomu ndey yi di bég ci marché Maam Jaara bi ndax boo leen xoolee ci ginnaaw gis ngeen taxawaay bi nu mu rafetee macha allah kon boog kontaan na maa ngi leen di sant di gërëm di ñaan magal gi ñu jëm yàlla nañ ko téwé ay déwén déwén yu bari bari bari te bu ñëw rek gëna dakati morom té non sax lay démé jëré soxna si gis nañ sa naataango nga gis nga ni ñu waxee ci safar gi lan nga ci mëna doli dundu nak di ñaan yalla guddu fan bu bu ëllëgee Benen magal yalla may ñu guddu fan ak wër mu tak fukki nak ak ay ginar yu bare bare bare ñing koy ñaan yalla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa sant nañ nak wax deug yalla wa Jaara mag xalé ñepp japp nañu kon loolu ak cant la nga woote bis sëñ tuubaa ñëpp ñëw loolu ak cant la kon ñun dañuy sant rek ba mu bari di sant tamit sunu naataangoo yi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi ak ci bis bi di ñaan yàlla defal ñu gudd fan ak wér comme ni ma ko waxee woon sëñ Mountakha yal na fi yàgg te wér sëñ Mountakha yal na fi yàgg te wér jërëjëfee borom Touba kon sant nañu baax. soxna Khadijatou waaw yow ku ne xam na ni mën naa ne yow yaay coordinatrice su safar gi ndax boobu ba léegi noppalu woo yaa ko àndal. nelawoto cantine bu nek magasin bu nek gis nañ la nga dugg fa di waxtane safar gi tay dañu bëgg nga expliquer ñu manam début safar gi ak préparation bi ak li nga xamanteni tay mom nga am réussite nii waaw auzubillahi mina sheytaani rajim ginaaw bi ma sante yalla sante sama wayjur sante euh, sama borom kër di sante ñepp ñu fi tew di wax jërëjëfe serigne Touba jërëjëfe serigne Touba jërëjëfe serigne Touba alhamdullilah tamit euh, li tax ñu ray suñu bop ci safar gi di ko jaayante da di Touba amul morom serigne Touba kenn la amul Tanki ginaaw Tanki kanam la am euh, yoonu serigne Touba dañ ko wara yaatal rawati rawatina ñun soxna yi nek fi ci marché maam Dia. sha allah wax deug fa yalla dara ñaaw fi kon tay su ngeen organiser safar bu melni rafet na ñun yaay faali sa Karim bakay ñu tew ci. rawatina nag sama mag yu baax yi nga xam ne soxna Ndey kenn du moom ci man wax dëgg yàlla ak sama yaay yu baax yi yow foo de kenn amul sa fay ndax wax dëgg fa yàlla tette nga ñu wan nga ñu yoon ba dara du dara ba tey ñu ngi fi macha allah kon dañ leen di ñaanal safar bii ñun dañ cee am yëg boo xamante ni bu nee ñaan nañ yàlla mu ñu yokk ba kawe sunu njort barki Cheikhul Khadim ñaan nañ yàlla bu nee lépp lu luñ ci yootu rek yàlla nañ koy darajee Muhammad sa Rasulullah ndax yéen moom ñu ne maase maam jaara rek maam sa maam jaara maanaam tur bi dafa wuyu borom kon lépp lu ñu fi def rek ci barke soxna jaara bu so rek lay wuyu waat ñu ngi leen di ñaanal leen ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax seen teewaay rafet na macha allah di leen ñaanal bu dewee déwénee na yàlla nañ ko fi tax ay oto oto ci barke yonent bi télé yëpp teew fi ñaan nañ ko yàlla ci darajay Mouhamed merci beaucoup Fodé Mbow sunu président bu ñaawul bi dëgg yàlla jërëjëf ay màggali màggali màggal te sëriñ bi nangul ñu sunu gëm ñu bëgg sëriñ bi te bañ a gëm keneen ku dul barke suñ tuwaa xasida yi soxna yi nag wax dëgg fa yàlla ay jàmbaar ndax parce que bis bi bu taaroo nii amaana lépp ñoom la ku mel ni ñoom soxna nday nday nday nday nday Dieng ñoom madame Ndiaye ak ñoom ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ amaana mooy loolu kon duñ def loolu dinañ ñaanal ñu mën koo sëriñ ñu gën leen a kattanal ñu gën koo mun ba saasu ne ñu di ko jëf boole ko nag jëf bay doose ndax foofu lañ toll ndax sëriñ bi fi ñu toll jamono ji man dama naan boo ma ne Bachir noo dama la maa ngi sant sëriñ Touba bay doose ndax yëngu-yëngu jamono ji dañoo bari bu ñu sëriñ bi dimbalee ba ñu am kàttanu amu xelu di sax si sëriñ bi kon sant rek lañ mën a def soxna yi loolu lañ leen di ñaanal sëriñ bi nangul ñu jëf gi ful ko mu doon ay ay ay safari safar ba ñu fiy yeew lu mat 30 gileem si bunt bi 30 nak di ko sant sëriñ bi kase te jublu ñu si lenn dul moom taw feex saa baax jërëjëf sant nañu bu baax suñu safalu marché Maam Jaara bi moo waral lii waaw ñun waa marché Maam Jaara di safar rek Sénégal jëm kanam waaw mais safar gi naka ngeen ko organiser nii ndax gis nañ yaaññi ngeen bubb yi rafet na lekk gi bari na macha allah lépp a ngi ne gaañ lépp a ngi ne gaañ sañse yi rafet na lekk yi bëri na moom daal mu noon daal yàlla xam doy na daal jërëjëf soxna si moom mbaxal mi moom maa ngi nii maa ko res di ko gérer ku lekkul mbaxal mi lekkoo dara sama mbaxal rek avec jaaro bu sa borom poroxaan di borom màggal gii ah lépp dëgg la asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi dañuy wax jërëjëf Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke sabar gi nag ren dafa ala daaw mel ni ko sëñ Mansour daan wax day jenn mi tout tànk la nekk ci marché bi ñu nekkoon ak moom booba ba tey ñu ngi nekk moom ci marché bi mag ñi ñëpp da leen jox cër ñun nag ku ñu jox cër rek yënguñu moo tax bi mu ne mooy organiser safar gi ren ñu ni ko doxalal ñu ngi ci sa ginnaaw ñun ku ñu fonk rek ndax Serigne tubaa moo ko Mangi ñi dee leen fonk di waxtaan ak ñoom lépp suñuy loxo la ko teg ñun mag ñi ñun ñuy wax di def di dindi ab sag la koi koy ñaanal nag fu mu toll day wa marché bi marché wajen jën yaa ne tok restaurant yaa tok toog légume yaa ngi tok toog ñëpp nyep ngi nii toog ci marché bi ñëpp àndandoo nañ ñëpp nek nañ ben ñu koy ñaanal bi mu anan neexu ba neexu ba kuba koy ñaanal ndey jenn ak njéeme ak équipe bi ñu andalon yépp di liggéey liggéey bu reuy bi sant nañ bu baaxa baaxa baax di leen wax ni leen ni rek la ñun mag ñi ñi ngi seen ginnaaw dowuñu ci daayu serigne touba ak leneen lo xamni ni duy caaxaan ñi ngi ci seen ginnaaw ca kaw ca kanam jere wax deug yalla li mom yalla na gëna jëm ci kanam ba ci ñi ci tali bi tu ci si yeeg ñëpp ci yalla na gëna bu bu ne yalla na gëna yok barke sayyidina Muhammad ni ñu ko doxale moom neex na lool mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp bokk ànd jàkk jën yeeg ñëpp yal nañ gën a safarlu ko gën a boo déwénee yal nañu rey ay nag nagi nag ci barke Seydina Muhammad kontaan jërëjëf sant yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba ndax marché bi ban fiy nekk nun ñii daanaka ay jeeg yu ndaw lañ nekk fee ci ñett ñetti taabal ñu tuddee ko marché yëpp sa jëkkër booba bii taxawul amoy taxawu fi ñu nekk foofu ba fii nu koy waxee ñu nekk doon fi def nag lii xale yi def tey ñun mag ñi ñoo ko doon def dañoo sant yàlla nag ba xale yi ñëwee jël réew bi ndax desewuñu puso bu mu réer ndax bañ ko jëlee daa gën a rafet ndax ndey jeen li mu def nii day loo xam ne lu rafet la lu kenn dul fàtte ba mukk man mii di wax ak yow daa ñëw ba ci man ne ma mag ñi nga xam ne ñoo yoroon marché bi démb ak bërki dañuy safar def ay déguisement waaye yéen kenn du jënd kenn ku ne naa lagal fukki mètre ku ne am mbubb am kol am sër am lépp ma ne ko lu ñuy fay mu ne dara dama leen koo defal yéen magi marché bi fi nekkoon kon gone la goo xam ne loxoom set na wicc mu man a bokk ak mat ñuy ñaan nag marché maam jaara wuyu borom gën a wuyu turu borom di ñaanal nag nday jend ak ñim ko bokkal yal na leen yàlla gën a dooleel yal na sama yaay ji maa ngi lay nuyu bu baax a ah, doomi jaamur fay naa la. waaw ah, tey gis nañ leen yéen a ngi ci waañ bi yéen a ngi xoole comme combre yeeg karoot geeg yooyu lépp ci safar gi maanaam naka ngeen dundee bis bi ah dundee ko bànneex rek te xam ni lii ba koy tàmbali ah dañuy sant yàlla ndax booba marché bi ay mbaar la woon ñuy def pataaya ak meew ak kafe booba café Touba la tegul nii Baye Demba Seck jiite ko tubaarkàlla macha allah ak aji sunu doomi nek ci ak Collé ciow mi tay ñuy fataaya ak Tafa Seck ak sa bay bay Abdou Khader ma ngi sa àllaaxira yàlla na ko yàlla yërëm booba marché bi melu ni tay ñu diko def nak ñuy ray xar mu jigi ñuy togg ba tay yalla may ñu nak kon ñu diko ko sante yalla, ak Serigne Touba ndax Serigne Touba mom amul tanki ginnaaw tanki kanam la am ku ko jàpp mu jàpp lu ko bàyyi mu bàyyi la ndokk nag bañ jafandoo ci moom neex na tey nag ku ne ñëw na waaye ba muy mitti ñun rek la woon ci marché bi kon nag danoo sant yàlla tey bi nga xamee ne tey neex na tey ba ñëpp dikk ñu sant yàlla bis yi ñu man ren yàlla nañ man déwén ko nday jenn nag mi jaxase ni ñi boole leen boole kër yeeg mbedd yeeg ñëpp ñëpp nekk benn ñu ngi koy sant di ko ñaanal di ñaanal Aram Ndiaye mi nga xam ne mooy sunu magam marché lu fi bax moko fi def ñu and mooma ndax ku jaaxle dem ci mom rek aram jaay ginné na la di gërëm aji pànjaay bu boolante nit ñi kon yalla ñu yalla fay fayal ñu bop ak Serigne Touba Mbacké di ñaan yalla nak man mi di seen ñeñam marché yalla na yagg jiite wacc na nak ndax amna ay doom ñom jéme ngi ñom ñep motax ma toom ngi kon yalla na and bi yagg di gërëm la barkala ma sha allah ndax nagu day ni mara di taal la jërëjëfati sama doom. jërëjëf suñu yaay booy jërëjëf. ndax lii sëñ Touba ñëpp na liggéeyal amul tijaan amul murit amul laay ñëpp na liggéeyal kon ñëpp si biir kon lii moom dafa am solo am solo boo xam ne ah, suñu xol fu seet daal fu seet trop te xam naa ne tamit déwén incha allah suñu si yàlla bàyyee lépp dina gën a neex dina gën a yaar trop incha allah tamit bëgg naa tamit burgu bi eh, eh, wàllu burgu bi wàllu eh, si mbokku tijaan suñu ñëwee def ni ñu def ni kon mourid ñu nekké ben ak tijaan nekké ben yépp ñu bokk nekké ben nak inshallah allah yéen ala ki nak mom moy jaay jaay jaaykatu tissu bi ci marché bi ku jënd tissu rek yaakaar naa ki la kon soxna ci waaw na def sant bi sant suñu di sant Serigne Touba mbiru Serigne lépp Serigne Touba moo ko waral Serigne Touba amul morom lépp loo door si moom amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la jëm macha allah moo tax marché bi chaque année dañuy safar di ko sante Serigne Touba ànd booloo ñun jigéen ñi macha allah nekk benn di sant Serigne Touba rek di ñaan yàlla chaque année ñu di ko def ci daraja yontu salaam salaam barke Cheikhul Khadim loolu la ñuy ñaan. jaar baax a baax alhamdulilah. gis nañ boobu ba léegi yéen a ngi yëngu dem ba tey en tant que jeune. ñu gis leen ngeen am taxawaay taxawaay bu am solo tey jii gis nañ safar gi ban tolluwaay ngeen te am. waaw contentement rek xam nga ñun moom ndeysaan bëgg na ko de Serigne Touba te marché bi suñu marché la ban fa nekkee yàggut waaye ndeysaan danoo ñëw fekk si ay kilifa yoo xamante ne ndeysaan xam nga chaque jour dañ koy teg si yoon te danoo bëgg lu baax te dañuy ñaan yàlla xam nga heure bi déwoon ñu yokk mooy loolu te ndeysaan saa su ne suñu jëwriñ ji di pap saa su ne ndeysaan dañuy soññ si marché bi ni muy doxee yooyu noonu te sëñ bi moom jëf jël la rek bu nu xoolee daaw ban koy def ak ren parce que gis nañ si yokkute goo xam ne moo tax dañuy bàyyi suñuy nelaw bàyyi suñ lépp ñëw ñun aw na ku dul sëriñ Tuubaa barke sëriñ Bamba moo tax saa su ne ndeysaan ku xamul dañuy jàpp ne dañuy def lii pour lii wala luñ sëñ bi rek lu tax di def si dégg tamit wala luñ si am tamit sëñ bi la ñuy sàkku quoi li si des yëpp garaawul di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne carrément moom liggéey moom taw feexe na lool di ñaan yàlla déwén suñu borom def mu gën a yaatu gën a taw fee gën a alaa daw mi ndax pour l'instant ni moom liñ si jotoon yëpp am na di ñaan yàlla mottali ko si jàmm rek di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi loolu déwén nag aw na loolu moom di sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan nañu baax a baax a baax barke Serigne Bamba li ngi taxaw ak Ndeye Maguette Ndeye Maguette wax wax taalibe Serigne Saliou borom nga xamante ne moom ku wax marché Maam Jaara mënoo ko ci génnee Ndeye Maguette naka mu maa ngi nii nuyu naa leen di leen sargal yéen ñëpp di kontaan nag waa ci marché Maam Jaara tey ñuy def safar gis nga ko ni ñu ni ñu defee jongoma ni ñu ñëpp def suñuy hôtesse waaw kontaan ci lool mi xam nga ne amul tànku ginnaaw tànk kanam la am waaw loo ci def lu nekk rek dangay gën a jëm kanam waaw te sëriñ Touba moos la mu liggéey moos ku ci def sa dërëm yokkute rek nga ciy am te ñun ay taalibe sëriñ Saliou ay cantaakun lañ waaw. kon tey lan lañ mën a xaar ci bernde bernde war naa yaatu. lépp mu ngi fii ceebu yàpp mbaxal jus yi attaay yi was yi manqué wul dara fruits manqué wul dara lépp a ngi ci biir waaw sëñ Touba ko mbaa organisation méttiwul déedéet méttiwul lépp lañ yombal waaw ndax sëñ Touba moom ay mbiram dara jafewul lépp yomb macha allah. jërëjëf soxna Ndeye Maguette kon noonu lañuy ñuy demaatee rek seetaat yeneen mbokku taalibe yi jërë ngeen jëf. أنهار سال إلهي بالمناجات وابدا أحنايتي أنهار دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوة والأولياء قصيدتي فاخت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرا هديتي مخجلة كل مالك كان منازيا وغزاو مالك ما توجه نصار الله بلا إله إلا الله martawaja nasara law li bila ilaha ya yalla bin mustafa sindidi yalla ya wa wabi khalilika ibrahim ya yalla ya bin mustafa sindidi yalla ya wa wabi khalilika ibrahim ya wa wabi kalimika musa salihin khadrin wa bi soybin wa ismaila yallahu wa bi sulaymana nuuxin yunus yasay wa zakriya ayaxriya ota yallahu haruna yusawin yasin wa adama da da wasil kifli salote yallahu wa yusufin wa bi isqaqin wa xayri min anbiya'in wa rusul laka yallahu wabi malaika turan suma sawiti jibril suma bi ila ya law wa sahibi nafsi israfil khabid ya wa khil khalaiqa adra ila ya law wabi sahabati suma al-awliya iman wala minina min al-akhbari ya law bi sidikhi wa bil farukh suma bizi nori suma abisi ya law بمالك زل المزايا سافيا بي خنيفة أحمد المغمود الله باللوخي والخلمي محفوظ اسم بيار ذكر العظيم ولي بالكرسي وبي وبيقولان والتف بنا وبها في الأولي الله أنا أتجاوز وإيا نرخمنا لنا شواك وأنت البر الله في برزق الغبر كلها وزرا ومن كروب وخوف يجي الله لا تعتبر بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء فيك يا الله وأسقنا ماء من ماء كالسر من تردغ من جميع الخلق يا الله من كان يرتد زاغين ويغلق زاغ كفرين ويسر ما يخساق يلهاو محمد سيدنا محمد محمد سيدنا محمد محمد مسكين لخيار قائدنا لجنة الخلد يوم الحصر يلهاو عليه الصلاة والسلام دائما أبدا ومن خافه ليوم الدين يلهاو لم يب مثل المصطفى محمد لم يلبثوا تماما لم يلبثوا تماما سر الوجه رمز البرايا سمد مدلنا الإسلام والكفر مخا وبنصيقة لكل سمها يقود بالظاهر والباطن من أتا أو آه، ولله في كل سمل خدمة عن الخيور أزغبت والاستخامة وسؤال وربت لبان كنو مصطفى رئيسا لكل من خلف دلو رئيسا خلو خدما فوق كل رقبة من وس ترى الغل كل مرحبا محمد مثال له فمثله لا يريدي له السيادة له البراءة يما أنس ولدا وشاء والنبي والرسول والخليل والخبيب والإمام والدليل براء البديع من غير جمال وزن الخدوس عن غير كمال كونوا نبيا منتخى محمد خير الورى مختار عند سمد جامو لين كبلا نياو ku la jaamul ba xëy perte na lay lay lay lay lay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 laa ilaha illallah faal laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah